Muhammadun Baba na la والجلب عبد الصلاح والجلب بيسي محمد الجلبي avec leader de l'opposition, le chef Ousmane Sonko, le chef Balayi. Je Mar Nimela, le maire de Saint-Paul-Lembe, le président de la

Allez, tu vas là. On va pas ñëw leen ñëw leen ñëw leen kii ko loolu loolu. yow boo mënee dem ci beneen heure. waaw waaw mais xaaral ba si am bàyyi ba si kanam bàyyi ba si kanam bàyyi ba mu fa ñu jël position bi ok ok. xoolal xale yi xoolal xale yi. waaf naka waaf yaa leen ñëw Touba naka yaa leen ñëw Touba waaf ñëw laay président Pleasure. Pleasure. Cheikh nga xam ne. waaw waaw waaw téye bu baax téye bu baax bu baax. déet

alors am na ci passage bi nga xamante ne dara yàlla koy bu loolu Mbacke Mbacke ñëpp Mbacke ñëpp ñëpp Mbacke ñëpp. dara boo paree wax. Jàpp la. Kii, wala bu ngeen di mel, bu ngeen di mel.

हा कोटन्स Okay, good. mi ngi noonu mbokk interno yi mbokk internautes yi convoi bi génn na il faut diir que le président Ousmane Sonko bi mu jullee ba pare euh, am na leader Yewwi Askan Wi yu ko fekk si ci camp de bi mu di le président muy le président Malick Gakou Cheikh Tidiane Malick Gakou ñëw na ànd ak Cheikh Tidiane Youm Cheikh Tidiane Dieye euh, honorable maire de Guédiawaye Ahmed Aïdara waaye itam ànd ak yeneen leaders yi ku ni Déthié ñoom ñëpp ñu rallier Touba fas dem Mbacké Mbacké nag tey loo xamante ne ci taarix mën nañ ne gulet la moo fi na ta am président Ousmane Sonko euh, comme ni ñu ko waxee fas yéene am fu mu war a dem dañuy garder surprise bi ba ci kanam tuuti rek mais sénégalais yu bëri dinañ kontaan macha allah loolu mooy la situation actuellement ñoo ngi wetu résidence Cheikh Béthio Thioune foofu la ñu génn ñu ngi soog a agsi ñu ngi soog a génn à peine cinq minutes ñoo ngi tolloo fi nga xamante ni moo di résidence su borom jannatu Mahwa Cheikh Béthio Thioune foofu la ñu toll nii le convoi il est tellement important ak ni mu bëree nit macha allah ci kanam ak ci ginnaaw loolu moo tax mu xaw a yéex tuuti waaye xam naa d'ici quelques minutes dinañ ci gis loo xamante ni. diggante Touba ak Mbacké kom ni ma koy waxe Touba Mbacké Touba Mbacké Touba Mbacké xale yaa ngi noonu jóge ci daara yi soog a wàcc si xale yaa ngi noonu yor drapeau Sénégal Sonko Sonko fii ci Janatu Mahwa mu war jëm Touba Mbacké comme niñ ko waxee rendez-vous est donné à Mbacké tout à l'heure donné à Mbacké tous les cadres tout le top management tout le bureau politique de Pastef les patriotes ils sont venus parce que tey bés la bu am solo ci pure seur bi nga xamante ne moo di histoire politique bu parti bi Birame Souleye Bassirou Diomaye El Malick Ndiaye Ousseynou Ly Ousmane Abdoulaye Baro daanaka ñëpp a ngi koo ci xalaat rek mi ngi fi borom xam-xam bu fexe l'honorable député l'homme de Mbacké l'homme du Bawol Cheikh Thioro Mbacké mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu on accélère yéen a ngi koy xool comment la foule est entrée en transe comment la foule est en de suivre le président Ousmane Sonko ñoo ngi soog a démarrer du dara lii mise en train la lii du dara mise en train la parce que président dafa bëgg a génn ci périmètre Touba parce que li koy xaar ci Mbàkke bari na waaye askan bee génn président Ousmane Sonko xoolal ma gars yi ma ni ñu toppee convoi ma ni ñu toppee convoi bi di daw. xale yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu jóge ca daare de muuraay gu jekk ba ay waay Touba ay waay Touba jannatu mahwa jannatu mahwa Sonko Sonko fii affaire jeex na tàkk fii jeex na tàkk ici à Touba y a pas match mënut a am Mbacké UTMC ak i président Ousmane Sonko ñoo ngi traversé Jannatu Mahwa mi ngi noonu admirer la foule admirer ces femmes, admirer cette jeunesse qui court, qui le président Ousmane Sonko. yàlla xam na ne bëgg na saafonteeg askan bi fi nekk bëgg na génn waaye tuuba la tuuba la di dëkk bi nañu bàyyi ba àgg Mbàkke xoolal nit ñi ci kaw terrasse xoolal ma ci kaw terrasse exceptionnel exceptionnel lii mësta am waaye leer na ma leer na ma ne gisooguñu dara gisooguñu dara mi noonu ñu ngi koy may ay orange ñu koy may ay orange ay waay ay waay ay Sénégal ay Sénégal ay Touba hadiya yi commencé nañ orange lañ ko may orange lañ ko may ak 2000 francs hadiya yi di ñëw président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko di génn fi nga xamante ni moo di jannatu mahwa génn fi nga xamante ni moo di jannatu mahwa jannatu bu Cheikh Saliou jannatu bu Serigne Béthio Thioune jannatu bu suñu sang bi Serigne Saliou ki nga xamante ne usmaan da koo jël Ousmane da def ko référence Ousmane da koo jël waajuroo ko Ousmane da koo jël ni moom rek moom kese moom lay jël ci référence usmaan a ngi noonu Ousmane a ngi noonu bëggut a génn fi malgré que nit ñi bëri nañ macha allah mais bëggut a génn fii bëggut a génn fii nit ñi bëri nañ ñoo ngi toujours ci périmètre Touba dañuy ormal dëkk bi donte li am nii li am kenn mënu ci dara waaye gëm naa ni gëm naa ni sëñ bi dina ko nangu gëm naa ni sëñ bi dina ko comprendre ndax lépp ci cofeel lépp si président Ousmane Sonko tey ñëwoon fii nii ci Touba ak si dem ziar xalif général des Baye dem ba këram saafonteeg moom nuyonteeg moom jokkalanteeg moom askanu Baye Fall gi yëpp nangu askanu Baye Fall gi yëpp sargal ko président Ousmane Sonko jóge foofu Dem Touba, la grande mosquée de Touba, le symbole de notre souveraineté, le symbole de notre dignité retrouvée, la grande mosquée de Touba, bâtie sous la demande du grand Cheikhoul Khadim, l'homme qui incarne la souveraineté, la dignité de l'homme noir, ki nga xamante ne yàlla ko tànnal boppam Khadimul Mustafa, le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mu julli foofu saafonte ak ki nga xamante ni moo di Serigne Mountakha borom mbégte gi ñu waxtaan ñu waxtaan mu soññ ko ñu waxtaan mu laaye biir ko ñu ñoo ngi jëm Mbàkke ñoo ngi jëm Mbàkke Mbàkke Bawol Mbàkke Bawol le président Ousmane Sonko mi ngi ñëw mi ngi ñëw waaw li xew fii Touba lu exceptionnel waaye on va de de se retenir un peu dañuy am tuuti retien ndax ñooñi Touba waaw ñooñi Touba moo tax il faut am tuuti retien waaye lii mësta am xool leen askan bi niñ ci toppee di daw sécurité bi accéléré na accéléré na waaye gëm naa ne lu ñu accéléré accéléré xale yi dinañ leen topp daw ba Mbacké Touba Mbacké on arrive Mbacké on arrive yéen a ngi seen noonu le véhicule du président Ousmane Sonko di fàttali Cheikh Tidiane Dieye Cheikh Tidiane Youm ak ki nga xamante ni moo di Déthié Fall président Malick Gakou l'honorable député Ahmed Aïdara Yewwi Askan Wi la Yewwi Askan Wi la mi ngi noonu Sonko bari doole xoolal ma soxna yi ma soxna yi Sonko moo bari doole ndeysaan bëggal du tuut coppal am solo la bàyyi seen yitte ngir waxtaan ngir saafonte ak président Ousmane Sonko nous sommes toujours à Jannatul Mahwa le fief de Serigne Cheikh Béthio borom cant yi ñoo ngi fi jannatu maxwa ñu ngi progressé ñu ngi progressé ñu ngi accéléré cadence bi ñu ngi accéléré cadence bi parce que itam dañoo bëgg a génn fii nga xamante ni moo di périmètre dem Mbàkke koo xamante ni askan waa ngi ñuy xaar waaw góor murit waaw góor murit waaw góor murit ngi noonu mi ngi noonu ñoo ngi accéléré Touba ñoo ngi ñëw Mbàkke ñoo ngi ñëw Mbàkke Bawol ñoo ngi ñëw Mbàkke Bawol ñooñu ngi noonu di fàttali le président Ousmane Sonko mi ngi ànd ak nga xamante ne ñoo di ay xaritam mi ngi ànd ak nga xamante ne mooy waa Askan Wi Yewwi Askan Wi mi noonu mi noonu mi noonu acca acca ñu dem acca ñu dem acca ñu dem acca ñu dem acca ñu dem Mbacké Mbacké ñoo ngi ñëw Mbacké ñoo ngi ñëw président Ousmane Sonko mi ngi ñëw président Ousmane Sonko mi ngi ñëw Baye Fallou askan wi mi ngi ñëw Baye Fallou Sénégal mi ñëw Baye Fallou askan bi mi ngi ñëw président Ousmane Sonko le don de soi pour la patrie tel qu'enseigné par la doctrine du mouridisme Ousmane Sonko ngi noonu ñoo ngi progressé ñoo ngi progressé aywa aywa eh borom jakarta nu fi jóge waaw ngi noonu je rappelle que le convoi de minimum de minimum quarante véhicules quarante véhicules lu mu ndaw ndaw ndaw ñoo nekk ci convoi bi le bureau politique ñëpp ñëw ñëpp aksi Bassirou Diomaye Birame Souley El Malick Ndiaye Bala Moussa Dafé xam-xam du pexe Amadou Ba le brillant débatteur Ngagne Demba Touré ñoom ñëpp a fi Pastef est là Maykor yaay faalu président Ousmane Sonko la mun a Dieye ñoom ñëpp a ngi fii a Dieye mi ngi fi ñëpp a ngi fii le bureau politique de PASTEF dans sa majorité waaw ñëpp a ngi fii ñëpp a ngi fii ñëpp a ngi fi ñëpp a ngi fii ndax tey bés la boo xamante ne bu am solo la ci li nga xamante ne moom moo di l'histoire politique de PASTEF les patriotes Pastef les patriotes Pastef les patriotes au cœur du Bawol mi ngi noonu ñoo ngi jëm Mbàkke ñoo ngi jëm Mbàkke ñoo ngi jëm Mbàkke ñoo ngi jëm Mbàkke ñoo ngi jëm a ngi gis kenn woowul kenn kenn fayul kenn kenn yëgalul kenn kenn xamul itinéraire bi nit ñay génn di daw seen si président Ousmane Sonko mi ngi noonu convoi baa ngi noonu ngeen di découvrir convoi baa ngi noonu ngeen di découvrir nee naa leen mu ndaw ndaw waaw le mu ndaw ndaw mën naa wax ni quarante véhicules ñu ngi ci convoi bi acca ñu dem acca ñu dem acca ñu dem Mbacké mi ñuy xaar Mbacké mi ngi ñuy xaar Mbacké mi ngi ñuy xaar mi ngi noonu on accélère on accélère un peu mi ñuy xaar Mbacké mi ñuy xaar Ousmane Sonko leader de Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko est le leader de Yewwi Wi Ousmane Sonko est le Wi ngi jëm fi nga xamante ne moom moo di Mbacké ñoo ngi jëm fi nga xamante ne moo di Mbacké Mbacké ñoo ngi ñëw Mbacké ñoo ngi ñëw Mbacké ñoo ngi ñëw askanu Mbacké askanu Bawol taxawaat askanu askanu Mbacké askanu Bawol président Ousmane Sonko nga xamante ne moo di leader Yewwi Askan Wi fekk si ko loraan moom moto yaa noonu moto yaa noonu tey gannaaw yi waa dina xaw a métti waaw waaw sacré comme on pas laisse contenir un peu notre notre motion. bàyyi ba ci kanam xam naa li na taxew Mbacké ça sera unique dans l'histoire politique du Sénégal et à jamais national de l'histoire du Sénégal président Ousmane Sonko ñoo ngi même si c'est difficilement parce que tey li am ci nit li fi nekk ci oto waaye bésu Pastef la bésu président Ousmane Sonko la bésu Bawol mi ngi noonu yéen internet yi mën ngeen ñu wax si fekkee ni le son est bon on a quelques doutes là-dessus bindal leen ñu rek su son bi baaxe comme ça ñu tester en peu si le son bon si le son est bon bindal leen ñu ñu xam on quelque quelques doutes là-dessus si le son est bon merci de nous faire mi ngi noonu affaire bi Sonko la affaire bi Sonko noonu ñoo noonu

Over there. ñoo ngi noonu di génn Touba président Ousmane Sonko ànd ak leader nous voilà à Mbacké agsi nañu Mbacké agsi nañu Mbacké Mbacké ñi noonu Mbacké ñi noonu Mbacké ñi noonu Mbacké ñi noonu borom si kii da ngay kii. président Mbacke mbokku internaute yi président Ousmane Sonko dégg na Mbacke ñoo ngi biir Mbacke ba doon leen live bi bu ko defee ngeen mën a. doomu Casamance bi kii di. encore di ngeen soor kii di. mooy aslam ne ma kii di maa jëbul sax. dañu noonu. comme ça ñu mën a wax ak Mbacke doon. parce que bu fi nekk Mbacke gars yi bu fi nekk Mbacke.

Mbacke ngi noonu Mbacke ngi noonu Mbacke ngi noonu nit ñi ni ñuy génnee xool leen nit ñi ni ñuy génnee ci koñ yi exceptionnel ma Mbacke ngi noonu président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko dugg na président Ousmane Sonko dugg na Mbacké Mbacké ngi nii Mbacké ngi nii Mbacké ngi génn Mbacké ngi génn exceptionnel ñoo ngi nii di soog a dugg Mbacké Mbacké ngi noonu comme ni ngeen ko gisee président Ousmane Sonko bàyyi faalu wi bàyyi faalu Sénégal bàyyi faalu askan wi moo ngi noonu di dugg Mbàkke nit ñaa ngi noonu di daw di daw di ko accueillir regardez cette liesse populaire regardez cette liesse populaire écoutez ce vacarme extraordinaire xoolal mi ngi noonu fumée boobu ngeen di gis boobu ngeen di gis ni Mbàkke daa ni Mbàkke est entré dans la résistance mi ngi noonu mi ngi noonu di ñuy progresser ñuy ramasser regardez ce dispositif regardez ce dispositif sécuritaire mani di ñuy le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko sera et est à on sera Mbacké xale yaa ngi daw xale amul dispositif amul dara nous sommes libres de circuler dans ce pays-là et on va le faire comme il se doit c'est garanti par la Constitution du Sénégal la Constitution du Sénégal nous serons à Nous sommes embarqués. Nous sommes C'est un face-à-face tendu. C'est un face-à-face tendu entre le peuple et des quelques éléments qui répondent à des ordres illégaux. À des ordres illégaux. La confrontation La confrontation, le rendez-vous de le président Ousmane Sonko, protégé par un mur humain. Le président Ousmane Sonko est protégé par un mur humain. Le peuple le protège, les jeunes le protègent. Ils enveloppent son véhicule. Le président Ousmane Sonko ñoo ngi nii dem Mbacké la amul dispositif amul dara. à un ordre manifestement illégal. Il faut désobéir, avait dit le président Ousmane Sonko. Ana kii ana Boy. Boy, inside of it. Huh? Lala? mi ngi noonu mi noonu di ñuy dem di ñuy jàll di ñuy dem certainement leur premier coup de lacrymogène, le face-à-face entre le peuple et là, quelques éléments qui répondent manifestement à un ordre illégal. On ira à Mbaké. On sera à Mbaké. On y va. alma kii bi booy. mi ils ont tiré des lacrymogènes. ils ont tiré des lacrymogènes sur le véhicule du président Ousmane Sonko. ils sont en train de gazer le peuple sénégalais mais on ne bouge pas on ne bouge pas. le président Ousmane Sonko, le véhicule de la presse, est en ligne de mire, en premier front, le véhicule de la presse. Est-ce qu'ils vont charger ce véhicule-là Le président Ousmane Sonko, Malik Gakou et tous les autres, ils sont là, ils ne bougent pas, On est là, ils ne bougent pas. Mais à un ordre manifestement illégal, il faut désobéir. Et le président Ousmane Sonko, ngi noonu ils sont en train d'envoyer aussi des pierres sur du président Ousmane ñoo ngi ñuy ay xeer. ñoo ngi noonu ils sont en train de reculer ñi ngi ñuy ay xeer ñi ngi ñuy sànni ay xeer on va avancer on va avancer on va avancer on va avancer mi ngi il y a des éléments du GIGN. La gendarmerie de lancer sur la sur la presse. ñu ngi ay ñu ngi ay xeer ci presse bi. ñu ngi ay xeer ci presse bi. On ira à Mbacké. On sera à Mbacké. On ira à Mbacké. On sera à Mbacké. Le face à face est là. mi ngi noonu ngi ngi ñuy sànni ay xeer ak ay lacrymogène mais le dispositif est correct le dispositif est correct ñoo ngi noonu certainement vont-ils attaquer vont-ils ngi noonu Nini noonu. noonu. voici le dispositif. gendarmerie mi ngi sànni ay xeer. sur le véhicule de la presse. lacrymogène yi itam mi ngi mais on n'y peut rien. on n'y peut rien on est coincé. Inch'Allah on va essayer d'être au poste. yàlla baax na yàlla baax na ci xare ñu nekk mi noonu mi noonu mi ngi noonu mi ngi Notre véhicule est eh, attaqué. Notre véhicule, le véhicule de la presse. C'est le véhicule de la presse. C'est le véhicule de la presse. Attention. mi ngi noonu. waaw ngi koy may. mi ngi noonu ils ont gazé le véhicule de la de presse. ñoo ngi nii toujours au poste. non seulement ils nous ont gazé mais vous l'avez vu dans les images. le véhicule est entré en direct en collision mbëkk auto presse bi. auto gendarmerie. on a quelques blessés ci côté presse bi. waaye jàmbaarloo baa ngi continuer. mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu le face à face continue on ne bouge pas on ne bouge pas mi ngi mi ngi noonu Mbacké beneen côté Mbacké on nous signale que jeunes ngi foofu on nous signale Mbacké ngi noonu boy yi taal nañ ay pneu la gendarmerie ñoo ngi noonu le drapeau du Sénégal ki frotte mi ngi noonu mi ngi noonu saxaar si ngeen seen ci ginnaaw jeune Mbacké ñoo commencé ñoo commencé les affrontements mi ngi noonu mi ngi noonu Mbacké mi ngi nii voici ce qu'a fait Macky Sall boole askan wi ak ñi ñuy fay ba kenn mënut a dem ba kenn ñi ngi noonu di ñu sànni ay xeer comme ni ngeen ko gisee song dañuy daw. na ngeen song dañuy daw dañuy jeexal dañuy jeexal. mi ngi noonu j'ai reçu un projectile dañ ma sànni benn projectile moo tax téléphone bi wadd mais on est au poste est on sera au poste on est baa ngi Mbacké i noonu mi ngi noonu lii la gouvernement bi créé lii la gouvernement bi lii la gouvernement bi def la état bi def lii la état bi def comme vous le voyez ils ont lancé un projectile direct sur le véhicule du président Ousmane Sonko lii moom nuroo tentative d'assassinat mi ngi noonu ils ont tiré directement tir tendu sur le véhicule du président Ousmane Sonko ñoo ngi nii xale yaa ngi jàmbaarloo ak ñoom xale yaa ngi jàmbaarloo ak ñoom ñoo ngi noonu tapé ñii ñoo ngi noonu on va a ngi seen Mbacké ngi noonu dem ci Mbàkke mi ngi na ko fi am na yoon mi ngi noonu bënn nañu yoon kenn mënuñu tere dox biir Mbàkke bënn nañu yoon mi noonu on progresse on est à Mbàkke on est yoon amul police ani lépp loo xamante ne c'est manifestement illégal le véhicule de tête celui de la sécurité et du président Ousmane Sonko dégagé nañu yoon on avance ñu on sera là où on veut aller à Mbacké saxaar soosu ngeen ci seen un peu ce que les jeunes de Mbacké sont en train de faire on nous signale des confrontations un peu partout Cheikh am jël. tout droit day jàll. Mais on va essayer d'être au poste. C'est assez difficile, mais bon, on est au poste comme nous ils nous ont attaqués, ils nous ont gazés. Sécurité bi def liggéeyam ba na yoon kenn mënuñu tere doxantu biir Mbacké yéen a ngi seen saxaar bi Mbacké en feu saxaar on ira fi ñu ko prévoir fi ñu bëgg a dem mi ngi noonu mi ngi noonu. les jeunes son la les jeunes sont là toujours aussi déterminés toujours aussi déterminés bënn nañu yoon fi ñu jëm liñ fay dem fële saxaar sale ngeen di seen c'est des patriotes. qui sont en train de défendre leur liberté de manifester, leur liberté surtout d'expression et d'accompagner leur leader, le président Ousmane Sonko. xaala nañu yoon xaala nañu yoon convoi baa ngi noonu leader fii yëpp a ngi fii président Ousmane Sonko moo tijji bi mi ngi ci kanam foofu la ñu jëm foofu la ñu jëm le rendez-vous de Mbacké sera maintenu et il aura lieu il déjà commencé ont des conditions un on est on s'y préparé dañuy dem de dañuy dem de Mbacké ngi nii fu ñu neex la ñuy jaar fu ñu neex la ñuy teg suñu tànk ndax ay sénégalais lañ doomu askan bi lañ président Ousmane Sonko mi noonu la progression continue avec l'ensemble du convoi jàmm rek la ñuy am askan bee ko wax de jàmm rek la ñuy am ci loolu la ñu ne ci jàmm la ñuy dox ci jàmm la ñu ne waaye kenn mënuñu bund xataal mi ngi noonu on sera au point de rendez on sera au point de rendez-vous on ci oto on nous signale que li nga xamante ni moo di signalu Walf dañ koo coupé mais lépp a ngi fii les gens continuent de filmer et de donner la bonne information mi ngi noonu di ñuy dem de mi ngi noonu

mi ngi noonu vingt sept mille vingt sept mille connectés vingt sept mille connectés partagez le live et montrez ce qui se passe aujourd'hui à Mbacké Mbacké ngi nii Mbacké ngi nii bënn nañ Mbacké bënn nañ yoon bënn nañ Mbacké bënn nañu yoon mi ngi noonu waaw ni ma ko waxee rek le rendez-vous de Mbacké aura bel bien lieu le rendez de Mbacké aura bel bien lieu mi xale yaa ngi noonu le de Mbacké aura bel bien lieu foofu la ñu jëm ci point de rencontre ba mi ngi noonu Mbacké ngi nii bënn nañu yoon bënn nañu yoon partagé et le peuple sénégalais africain va voir les dérives yi nga xamante ne mooy yëfu dictateur yëfu dictateur yi fi am atteinte grave à la de circulation atteinte grave à la liberté d'expression à la de réunion Sénégal a ngi nii Sénégal a ngi nii on est un 10 février 2023 même pas en 98 ou bien en 92 wala 82 le chef de l'opposition et la première coalition politique de là empêché de tenir un rassemblement loo xamante ni constitution moo la ko may mi ngi noonu bënn nañu yoon comme ni ma koy waxee le convoi mi ngi dem malgré les jets de gaz lacrymogène et ñu lancé en tir tendu waaw ñoo ngi noonu ñoo ngi noonu ñoo ngi noonu ñuy dem Déthié Fall a ngi noonu Déthié waaw mi ngi noonu fu ñu dem askan bi génn fu ñu dem askan bi génn fu ñu dem askan bi génn kenn mënu ci dara amul 2000 francs amul bopp 5000 mi ngi noonu askan baa ngi noonu et nous sommes ci sàncaan yi la ñu ne bënd nañu yoon askan bee bëgg président Ousmane Sonko askan bee ko bëgg ku ci sa xol neexul chaque samedi dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi qui aura toujours mal au parce que c'est un leader qui pas faire. C'est un leader qui est prêt. C'est un leader qui est prêt à se sacrifier pour askanam ñoo ngi noonu bënn nañu yoon ñoo ngi noonu bënn nañu yoon xoolal askan bi nu ñu génnee xoolal askan bi nu ñu génnee te fii waruñu fee woon jaar situation mooñ fi indi askan baa ngi noonu askan baa ngi noonu Baay Faalu askan bi la ñuy teertu président Ousmane Sonko Mbacké Mbacké ñoo ngi ñëw Mbacké le rendez-vous aura ci place buñ ko soxla ci place buñ ko bëggee def dañuy xuus jàll xuus jàll xuus jàll loolu mooy xuus jàll président Ousmane Sonko accompagné des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ñi ñëw pour wane ni Sénégal dëkku liberté la Sénégal dëkku démocratie la te ñoom di ñuy ñëw vraiment c'est triste et l'histoire retiendra qu'un président qui est mal aimé par son peuple un président qui a peur de ce peuple-là utilise les forces publiques pour mater le citoyen sénégalais waaw waaw askan bi dina dem de askan bi nga dem de xoolal gars yi ci toppee di daw xoolal niñ ci toppee di daw xoolal niñ ci toppee di daw lii ku ci dara mi ngi noonu président Ousmane Sonko kii ku ci dara ku ci mën dara mi ngi noonu bu ñu mënee nañu dugg kër gu ne ñu dugal fa lacrymogène mais cet amour du peuple envers le président Ousmane Sonko il est inestimable il est incommensurable il est exceptionnel le peuple jubile le peuple jubile le peuple jubile extraordinaire Mbacké noonu Mbacké ngi noonu xoolal xale yi Sonko Sonko Sonko Sonko xanaa kuy sa askan sa askan génn jàppale la kuy xeexal sa askan sa askan génn jàppale si la Sénégal dëkku dëgg la la tooñee ñëpp jàppale la le président Ousmane Sonko fii ci biir Mbacke ci biir Mbacke ñoo ngi ci biir Mbacke lii ku ci mën dara lii ku ci mën dara président Ousmane Sonko xoolal ma lii mali ma lii moo fi ne xale yee ko wax du samay wax exceptionnel exceptionnel exceptionnel ce peuple de Mbacké exceptionnel ce peuple du Sénégal ñoo ngi nii ñoo ngi nii lacrymogène bi suñu parfum la waaye bu ñu gisee askan bi génn jox ñu dëgg di yuuxu Sonko ci biir koñ ci biir Mbàkke nga xamante ne ñoo ngi ci yoonu dëgg ku ci dee jaayit nga ku ci dee martyr nga le président Ousmane Sonko on va t'accompagner on va t'accompagner nit ñaa ngi seen kaw nit ñaa ngi seen kaw terrasse yi exceptionnel exceptionnel xale yaa ngi noonu xale yaa ngi noonu fay ñu kenn xoolal lii xoolal lii président Ousmane Sonko a Mbàkke lii la yàlla def lii la yàlla def la yàlla def lii la yàlla def nga tere ko jaar ci tali national bi askan bi accueillir ko seen buntu kër yi exceptionnel exceptionnel le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko mi ngi noonu le rendez-vous de Mbacké a le rendez-vous de Mbacké a été respecté mi ngi noonu ñu ngi exercer suñu liberté de circuler librement partout dans ce pays-là le Sénégal que l'on aime tant le Sénégal sunu Sénégal ñoo ngi noonu askan baa ngi noonu génn président Ousmane Sonko moto yi def ndànk nañu def ndànk Patriotes du Sénégal, d'ici et d'ailleurs, la diaspora du Sénégal des profondeurs. Mingini, votre leader est là, l'homme du peuple est là, celui que le peuple a choisi avant l'heure est là. Nyongi Dogumbake, Didok Mbake, visiblement encore, visiblement encore. Mingi mi ngi noonu mi ngi noonu xale yi nee nañ ku dee sa juraat waaye ñun nous sommes sur le chemin du martyre nous sommes sur le chemin du martyre le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko ñoo ngi ñoo ngi noonu ñoo Ilaay walaay on aime ce peuple on aime ce peuple qui nous le rend on aime ce peuple qui nous le rend comme on vous dit le rendez-vous de Mbacké aura lieu le rendez-vous de Mbacké est déjà il est déjà là je suis submergé par l'émotion ce peuple ce Sénégalais inconnu ce Sénégalais lambda ce Sénégalais qu'on a trouvé sur place Il vivra, il vivra, il sera avec nous. Le président Ousmane Sonko. Oh, oh, hey. mi le le est là.

laa ilaaha illallaah ñu noonu ba tey yaa ngi gaa yaa ngi gaase ñu loxo ñu daw Mbaa disperser bi moo baax. waaw ñu ngi ñu ngi coupé live bi ñëwaat ñu ngi coupé live bi ñëwaat il faut ñu jël Verme, verme, verme, c'est pas grave, c'est pas grave. Coupez live. gars ñu ngi coupé live bi ba rendre après ñu déclenché waat live bi incha allah jaa ngeen ci kanam.